tuuma bëri na yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na fii nga xam ne fi la réew mi toll Macky dafa njortu ne su organiser élection locale yi mën na koo ñàkk ndax ñi nga xam ne ñoo ko mere maanaam ñoo bëri lool ci réew mi ñi nga xam ne ñoo ñàkk ba maara day ñi seen loxo juddul seen ginnaaw saa sunu xëyee muy gën di yokk ci réew mi ñi nga xam ne amoon nañu am xëy di ko gën di ñàkk ak ñi nga xam ne dem nañ ba amutuñu yaakaar ci réew mi saa sunu bi di réew mi quotidien ci xëlim la ñu nekk Macky Sall bu xam ne ñooy opposition bi xam nañu ko ndax opposition bi ñoom xam nañ ne jamono ji ñoom ñoom mauvais vent ndax askan wi dañoo mere Macky Sall loolee moo tax nag opposition bi bëgg see profiter ngir sëkkatal régime bi ngir ñu organiser élection locale yi ci atum 2021 a gi nee na nag ñi nga xam ne ñooy opposition bi bu ñu fi nekkee di yaacaaral ba 2022 jamono jooju nag dina fekk Macky Sall jubbanti lu baree bari maanaam gën a amaat doole yéen a gi nee na manifestation yi nga xam ne moo fi jaarona loolee ragal loona Macky Sall bi di na en tout cas li am ba de Sall démb am am na diggante pouvoir beeg opposition bi ngir nag ñu jàpp ana ban date la ñuy organiser élection yi waaye nag ba léegi nii maanaam ak juboo amu ca yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñoom nag dañoo tuumaal majorité bi majorité bi ñoom tim di tuumaal opposition bi ci lajj i nga xam ne waxtaanu démb welaj na ko yéen a kaay gi di Source A xëy di ñu xibaar naan majorité bi maanaam régime bi ñoom dafa mel ni jamono ji dem nañ ba jaaxle ndax dem nañ sax bay wax ne su ngeen nangoo yéen opposition bi ñu daal leen di signaler ab résolution boo xam ne dinañu amal élection élection locale yi ci atum 2022 waaye tamit ca at moomee tamit du ñu dàq li nga xam ne mooy élection législative yi dinañu ko amal ci atum 2022 loole nag ñi nga xam ne ñooy opposition bi dañoo jàpp ne état bi daal waxi kasaw-kasaw maanaam bëgg leen a tuur la ndëm lay def yéene kaay gi di Vox Populi xëy dañu xibaar naan ñu Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ne moo fi nekkoon maire bu Ndakaaru jamono ji nag ma ngi def ay tournée waaye nag dafa bëgg a imposer ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias ngir nag mu a jiite ma ngay wane Barthélémy Dias di ko gën a fësal di ko defal promotion yéen a kaay gi sax di Vox Populi nee ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko njiitul Pastef ñoom nag pare nañu sax ngir jàppale Barthélémy Dias ci mairie bu Ndakaaru yéen a kaay gi di Rewmi ak Libération xëy yóbbu ñu université de Cheikh Anta bu Ndakaaru ci conseil de l'assemblée bi nga xamante ni doon nañu ko amal ni ki démb waaye nag conseil de l'assemblée de l'université de campus social bi journal na ne moo ko waral bokk na si jàppante yi nga xam ne waa Kikendo ak waa Ndefleng defoon nañ ko ay bés yi ñu génn ba am ko sa ñàkk bakkanam loolee moo tax conseil de l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru sàkku ñu daal di koy dogal waaye ko ci ki nga xam ne mooy Maguette Sène mi jiite kudd waaye nag waa kudd ñoom dañoo lànk kandaare nee na ñu amuñu benn compétence maanaam amuñu doole joo xam ne wala ab sañ-sañ boo xam ne war nañoo mën a tëj li nga xam ne mooy campus social yéen a kaay gi nee na dogal boobee nga xamante ni conseil ba jël na ko tax na étudiants yi démb mer nañu ba maara détail yi wàcc nañu si mbedd mi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi conseil restreint de l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop ñoom Malick Fall démb daan nañuy wax ne xaalis bu bari bi nga xam ne moom la ñuy jël di ko dugal ci amical yi loole moo tax étudiants yi di rayante seen biira xaalis bu bari bi nga xam ne moom la dugal ci amical yi loole la war a bàyyi Malick Fall moo ko xamle nee na xaalis boobee daal li muy xam ne jàpp nañ ko ci Sénégal fan yi des pharmaciens ñoom nag nee nañu danañu porte plainte ba pare di sàkku mbir mi daal di leer képp koo xamante ni laale na si ñu daal di koy xam yéen kaay gi di Vox Populi aman ñaa mi nga xamante ni moo jiite ordre des pharmaciens yu Sénégal daat nay wax ne li nga xamante ni mooy daan yi dañu ko war a yokk war nañu ko criminaliser ci ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum trafic faux médicament yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu taskatu xabaar yi nekk ci réewum Sénégal nañ lu leen metti moo tax ñetti fan ci weeru mai bi nga xam ne moom la ñu dëgmal mu yemboo ak bëccëg bi ñu jagleel wàllum tasum xibaar ci àdduna àdduna bi danañu wàcc ci mbedd mi la ko waral ñoom taskatu xabaar yi nee nañu li ñu leen di menace de mort dafa bëri ak li ñu leen di bundu réew mi ko di jë xëy duñu xibaar naan ñu coronavirus bi jamono ji ma ngi gën di wàññeeku ci réewum Sénégal ndax jamono ji lu toll ci téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñoo amee doomu jàngoro ji ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi yéen kaay gii du l'observateur yi nga xamante ni jamono ji ñoo ngi koy ñàkk gaayee ñàkk yi ñoo ngi def lu dara ci ay musiba moomoo kumba am na ñoo xamante ni bi ñu leen ñàkkee lu toll si juróom fukki nit ñoo xam ne bi leen ñàkkee dañu leen a mujjee rawale hôpital am na si juróom-ñeent ñoo xam ne ñoo ngi ci cas grave diggante dund dee dañu leen a ñàkk yéen a kaay ñi nga xam ne jot nañu leen a ñàkk ci réewum Sénégal effet secondaire yi tax na am lu toll si ñetti nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu am na benn rapport boo xamante ni waa Nations Unies ñoo ko def jëmale ko si wàllum sexualité rapport boobee nag ngir adduna bi yëpp la waaye nag bu dee Sénégal téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yëpp daal di ay jigéen bu ñu leen sàkkoo duñu lànk maanaam bu ñu bëggee ànd ak ñoom